de faux billets de banque prend de plus en plus de l'ampleur au Sénégal. Ces faux ont envahi le pays et leur circulation crée des dommages partout. Et parmi les victimes, il y a commerçants. am naa ci boo xam ne sax ba léegi demagul mu ngi loolu lay am ci client yi léegi la ñuy jox la ko fekk ñuy jënd loo bu bëri ci biir seen biir xaalis dañ koy boole léegoo léeg nag du nekk tout le temps day toog benn moment rek ñoom ñu dugg ci biir marché bi. Ils sont les principaux concernés de cette fraude qui porte préjudice à leur activité. nga xam ne faux billets moom partout la mën nañ koo jot aussi te xam nga parce que moom yoruñu machine yoruñu dara ay bawol bawol lañ lu dugg suñuy loxo ci suñu poste jëm. Pour ne pas subir les dommages certains de ces commerçants se donnent les moyens de pouvoir les identifier. am place yu ñu jaaxaale dañ koy am te deuxièmement ñoom tamit bu nekkee. si euh, na loo ciy dute da ngay les gérants de multiservices eux non plus ne sont pas à l'abri cette dame estime que des mesures doivent être prises pour éradiquer le fléau ah, On est des Sénégalais, on essaie de travailler avec le peu que l'on dispose, mais il y a toujours des personnes qui viennent pour nous arnaquer. Pas plus tard que ce matin, mon assistante a été victime de cela. Il faut prendre des dispositions pour y mettre un terme. Sinon, cela risque de fragiliser notre économie. Pour ce commerçant, le faux monnayage n'est pas nouveau au Sénégal. Il affirme cependant que c'est une pratique importée. ñi ñi nga xamee woon ñi ko wàll Sénégal yi mooy ñi nga xam ne suñu sous région la ñu jógee euh, ñëw Sénégal non Sénégal moom loolu duutoon duutoon mbaaxam moom moom xamewuñ ko woon loolu mais nag ñi ci rax mooy ñi fi génn dugg si dëkk bi ñoo ñoo ci wàll Sénégal yi La forte quantité de billets noirs saisis cette semaine atteste de l'ampleur du phénomène. Entre lundi et mardi, la douane sénégalaise a récupéré plusieurs billets noirs dont le montant est évalué à plus de 3 milliards